lañu génnee rek doo andi ci ñu jox ma ci man ñoom laay wër. ñu lañ leen def fii. waaw restaurant yow bu ñu ñu def fii yàq. suñu buntu kër la. ñoo ko suñu buntu kër toog fi di fen rek ñu ne leen bañ a. ñu fanaan la ñu kii kan lay waxal da ay fen. yow yabaate wu nga mais yow kii da nga naan ay fen nga xalaat dàll yow toog fii di jëw di fen rek. waa kii ku muy waxal fen nag yéen a. xanaa xale jigéen yi. toog suñu buntu kër gi ku nekk naan am diw jàppal diw di jëw di fen rek. jëw rek man balaa maa gën a am lu ma metti ñu ñëw ba sama buntu kër gi ñu ne fii lañ koy jëw. ñoo mën a fen trop dàq naa leen ba sonn ñu dëgër bopp toog fii di. xulli ñoo dem. waa bàyyi leen foofu garaawul léegi kay weeral ma man pare naa fóot. man hmm. damaa fóot bay bëgg a man tànt man wéeru ma di weer weer mel ni jigéen non man weeru ma du ma nekk fii di weer man ma nekk góor bu pare daal weer weeru ma fenn. waaw léegi bàyyi léegi man ma weeral sa léegi xanaa mën nga maa tuural ndox mi. tuur ndox <laughs> wala da ngaa jotul léegi yow tànn yow mii. <laughs> yëpp yow maa weer weer yi xoolal. Ah. demal xool lal bi lépp laa weer yi. Ah. Ah, lii dong moo ma dese. man taal bi kese laay tuur mer la eki caami la mer nañ tiñ nañ baadi la fer nañ jimbaam baadi dox reewal reew nañ baadaf moo di taaw moo di caab sa dëgg dëgg caab waa coono lépp moo réew moo xamal di fatt mag mi cere moo di la moo di jom jàngoro teggi ndawal ndëm yónneel la xamul nangu xamul sëñ nangu buy dox yaay sotti naa leen ndox mi yow ma lu ma yow yaa yabaate yow maa tey yéen a ma gën a yabaate song naa leen internet buñ dee jëw ci ba mu nekk buñ la yow mi nga xam ne da ngaa nekk ci kër gi dugal sa yoon nekk yow may ñu yow da ngaa yebal yow da ngaa yebal yow da ngaa yebal ma tey ma tey ma ne tantaan bi jëkk a ko naa ko seen jooy nag ñàkk fajaa tax ngeen jooy waaye man ci nekk nan leen